مختار فكل زمن مدن من عاقى عنه بشاد يوم سبيه وجدوا شيبة محمود ذو العالي مالك jërëngeen jëf jërëngeen jëf ñu xajal soxla si mu dugg si jërëngeen jëf dañu xajal soxna si mu dugg si ñu xajal soxna may mu dugg si mooy soxna sëñ Mbakke Diop tubaarkàlla macha allah boo gisee ni taxaw ak yow li wara la xamal ni yaa ci kër gi di fi def lu baax taxa waaw kooku mooy tubarkaal sa dëkk Omar Sakho waaye soxna May nee nga taxaw ni ñaari Omar sekk la ngeen fa taw Omar saxo Omar saw sukol tuuti rek madam sukol tuuti rek ak jóg leen taxaw ñaari oh, Omar yi jóg leen Omar Sakho Omar Sow war naa mën a ne ñii ay wëllëre yu Serigne Mbacké Diop lañ di di kenn dinaa ñëw waaw ci moom laa jëm si waaw mu gaaw tuuti waaw ayca ah Serigne Serigne may soxna may loxo mu mu yéeg ci kaw tribune bi amon nako de amon nako de dafa am galankor rek mu yóbbu ko ne ca gannaaw alxaaji Moustapha Mbaye sopp na bi ñu ngi ci bi xamna ci kanam dinañ ko duggal insha allahu taala sa baay bu baax bi attention foral yef yaa ngay wax de alaaji Omar alaaji Omar bi amarul sun suñ cheikhul khadim yow mënu koo dem Omar yow mënu koo dem ngir seigne Touba yow mënu koo dem de amar Serigne Mbacke mi ngi lay dagal ci barke cheikhul khadim dañu ci tante bi ñu may ko loxo mu jóg soxna may ñewen ni soxna may ñewen ni dañ may loxo waaw boo ci wax àdduna boo amul kàddu wax say mbokk boo amul kàddu waaye xanaa di gën a sant axlu làmb gi fi ne. ndax wane ni man lu mu bon bon bon ci làmb laa bokk. Fadam yow mi ci yow laay njëkkee. Boucher suma waa jëlee Liiru Diane Aline Seck ah. Lamine Lamine Jamaïcain Pape Modou ah làmb rek ñoo fi ne. kon nag du ma génn néeg bi te sant ma ñi nga xamante ni ñooy lu làmb ndax man ci làmb laa bokk bis na tey heure bi añu ma ndékkiwu ma ànd ak sama waa ji rek bëggoon mu am ndam yàlla def ko bis na tey mu nekkaat sama jouru tudd waaye tàgge boo gisee am na jàppal diw doom yaay jame kenn Omar Sow mu baax mi ah. Omar Sow mi nga xamanteni suma ñëmé li ñemee lii. déet waxtaan mën Omar Saw man menn Omar Saw menn mi. borom 600 bi. talibé cheikhuna khadim al Mustafa. Omar Sow dom dom nday Jamaïcain. séri nday sen ah Jamaïcain yaa may nax de. traiteur bi moko fay. mo fay basi xana du jëme Omar Sow sama waji mu bax Omar Sow mu bax mi séri Ndey sen mi nga xamanteni lu mu fekke fajj ko lu mu fekke fajj ko xana lu mu lu lu mu wute waxtaan war naa mën a waaye kooku kooku kooku kooku kooku waruma la waxtaan war naa am sax kooku kooku kooku danoo war di wax ci moom li tu li anglais naan every day every time every moment. kenn mënu ko ci yoonu Serigne Touba bi. xaadimal Moustapha Amadou Soxna mi ci baali maam mi dana Cheikh Mbacke góor ga demoon Gaboo jaani maa yombe kenn mënu ko ci yoonu Serigne Bamba kenn mënu ko ci yoonu Mouride. dama ni. billaahi wallaahi tallaahi dama bëgg àdduna bi yëpp di ko ñaanal. ndax lu nekk ci loxom bi nit ñee ko ci bàyyi. lii ma lay wax maa fekkee. Mhm. guddi la gën a mën a dimbali doomu aadama bëccëg. bi ci des ma wax la leen. comme combat Balla Gaye bi dane ma maa ngi lay giñal ci say Serigne Touba. lépp loo leen ci soxla ñëwal ndànk nga laaj ma ma jox ko te bul ma ci tudd. li may wax jame kay mooy sama seede. mooy secret bi. dégg li ma la wax de. waaye lii tax ngeen naan lii. waaw dama ne lépp loo leen soxla ñëwal tey laa koy door a wax ma jox la ko ngeen gérer ko ci discrètement te bu ko kenn yëg. ba pare jàpp ci zahir jàpp ci ci baatu. ne ko Alaaji Fada mu ngi lay nuyu. mu ngi lay nuyu. doomu nday jamee kee séeri nday seen. neel Omar Sow. Hmm. Alaaji Fada mu ngi lay nuyu. Alaaji Fada mi ngi nuyu. séeri nday seen xaritu jamee ku mu fay ñu xam ne fay na la. barke Serigne Touba mooy. waaw yaakaar naa ne euh, yaakaar naa ne Fawzeyni mi toog euh, ñoom ñëpp xam nañu mais lan ma li ma liir li ma liir nii li ma liir ci stafu Fawzeyni jàpp ma ne dinañ jël combat bi. dama sama kër nga indi ko njëganaay. jàpp ma man nag kay wax la ñaari baat lan non man euh, bëggatuma Balla Gaye numéro 2 wala Eumeu Sène wala Lac numéro 2 wala Tapha ñu bari ci seen biir nañ leen sàmm xale yi na leen sàmm gone yi. koo ngay sàmm moom mais Balla Gaye numéro 2 am na droit taxaw ne damay xaar Siteu Modou Lo. bu Siteu daanee. Balla Gaye Siteu kat dara dàq ko. bu Modou Lo daanee. Balla Gaye xool leneen ndax Modou leen du bëri teg Balla Gaye. yaakaar nga ko ndax. Ah. à part loolu. Francisco ngi fi. waaw coow la nag coow la. Balla Gaye 2 mii coow li mu indil réew mi barki démboo Njaay yi kenn amul jàmm combat coow rek la war a jëlaat Eumeu Sène digganteem ak Franc combat la Lac de Guiers numéro digganteem ak Franc combat la. loolay nag man su ma ko damaa bokkoon ci estafam. Tapha Tine nag man su ma bokkoon ci estafam day arrière. kan moo ko wax. ñu ko ñemewut ñi ko ñemewut ñoo koy wax ñu ko ñemewut rek ñoo koy wax. ñiko ko ñëmuru ñoo wax aksi na jik fu dan yi daan agsi nañ ko jël bëri ak mom ndaanaan la xalé la mu ngi entraîner sérieux na té bu gaay yi basé wu ci franc dafa réew réewul limi wax ni ñëpp ci lamb rek lako basé wu lim siq ni ngi ci lamb rek lay wax ñen gën ci xel ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan jàmm di assalamu alaykum wa rahmatullah wa ah, mais man man wa alamin Omar saw mom Omar saw warna naa ñëw ci réew mi doomu ndey jameke ak ni ma mel ak Madiou ah Madiou Omar Sow ñëw na fi Omar Sow maa ngi lay woo léegi.